nuyu naa ñëpp ñu ànd ak yéen dooree ko ca Thiès Info muy fësal ak di xamle di wax ci dee gi nga xam ne moom la Mariam Diagne làqu laa la wax moom Mariam Diagne Assane ma nga xam ne moo ko faat moomi la Assane ay waajuram laa la wax yëkkati nan ay kàddu wax li nga xam ne moom la ñu xam ci mbir mi ñoom ginnaaw buñ leen dégloo fële ca Thiès Info ñoom waajur yi ña ngay fësal ak di xamle ni ñoom ñaar yàgg nañoo xamante ne laa ilaha illallah xamante na lu jiitu Assane di tukki la wax nekkoon nanu ñoom ñaar di bëggante ci bi nag lan mel ni lu nu bàyyante ñoom ñaar Assane nekkoon ku sonn lool ñu daal koy dimbali jàppale ko laa la wax ba mu tukki ëpp la Assane nga xam ne tey jii moom moo def jile jee Assane moom mi nga xam ne tey jii moo rey Maram Diagne ba mu tukkee lépp loo xamante ni lu mu daan yor ci xaalis la ey way naw samba daaw ko yónnee ku dul Maram Diagne nga ni bu nu sukkandikoo ci yéen kaay bii di Thiès Info lépp lu mu yor laa la wax Maram Diagne la ko daan envoyé nga ni ci naka noonu yéen kaay baa ngi fësal di xam ne ni bi Assane ñibbisee fii ci askanu sunu gaal laa la wax teewul Maram moomee di seet si ki nga xam ne mooy waajuru Assane bu jigéen moom sax mas naa kàddu jëmale ci maaxees moom ma nga naan ko nee naa ko day bàyyil Assane laa la wax ndax Assane wérul ëpp la di ko da koo laa la wax moo yaayam ñu lànk ba kandaar dàq ko ni la leen Assane di menacé laa la wax menace yu méttee méttee méttee méttee méttee ba mu tax maxeem mii daal di dem porte ji plainte ëpp la kon nag gaa ñi dafa mel ni mbir mi yàggoon na ba mu demee porte ji day waajur Bassirou Assane nee na moom daañu daal di ñëw indi bi lu ci am ba des daal ba tey mooy mbir mi doy na waar ndax kat danoo jàpp ni Assane mile ay waaye ndaw àndut ak xelam lool lool lool lool lool lool lool est-ce que du bëggeel moo ko yóbbu ci lii. mani la ginnaaw ba plainte ba ñëwee laa la wax waajur Assane ni leen man sama yoon nekku ci. ëpplew ndax kat noonu la mare mu baa Assane laa la wax waaye li ci am ba des daal mooy ci ginnaaw bi la Assane def ji la jëyee laa la wax ci ginnaaw bi la Assane def metti di wutiis wii laa la wax jëmale ko ci mareem oh cey jigéen da nga xamante ni nee naa la keneen la ku bokk ci waa kër Assane moom ma ngay fësal ak di xam le ni Assane sax ñëw na ci moom ni ko man day sama xaalis ba laa la wax lépp lépp lépp lépp lépp lépp ah, mareem laa ko doon envoyé ba ma demee laaj naa ko waaye nanguwuma koo jox ah! doy na waar tey jii la 9 mars laa la wax ba nu góowe waaxu wuti Sénégal mu ni démb la woon 8 mars ñi nga xamante ni nag ñoo koy doon féete laa la wax oh, la mooy képp ku bëgg jigéen ñi ak jigéen ñi kon est-ce que am na ko ko féetewul ndax ku bëggul jigéen it bëgg nga say ay eh waaye ndaw sàmm waa Sénégal ni ma nag fi mu toll nii ko yëkkati ay wax téye ba mu kaw xalab sànni ko mu góo ci 8 mars ba kookee maître El Hadj Diouf lay wuyoo moom maître El Hadj Diouf ma nga naan man daal gëwma ay 8 mars yi ndax jigéen ñi eh waaye ndaw sàmb jigéen ñi kenn amul seen fay laa la wax ndax wi si bi dañoo war dëkk dëkkee di leen ko fete laa la wax ndax kat bis bu yàlla sàkk laa la wax yi lay jigéen lañ leen a war di bégal di dab seen bànneex laa la wax protéger leen ba dara du leen metti oh pulaw waaye yow mii moom kii ku mu waaye nag buñ bëggee rek di xaar benn bis ngir wan leen ni leen yéen yéen ay jigéen ñi oho loolu day niru leneen ba tey bu nu waxee daw dugg ni sarax foofee nga xam ni mooy ca Thiès Info information mooy wi ilaha illallah fii ci Thiès les femmes sargal kan lañuy sargal docteur Ndiaye ëpp law ca Thiès docteur Ndiaye moomee sargal nan ko laa la wax ndax lan xarañteefam ndax lan mën a liggéeyam laa la wax ak lan taxaw gi nga xamante ni mi ngi koy taxaw wu ëpp law jigéen ñi ba tey laa la wax ñu waxu wuti la nga xam ne mooy wàllum coronavirus bi sans limite di fësal ak di xamle ni ñaari ñi nga xamante ni jàppoon nan ni ñoom ñoo ñee coronavirus ba da leen a koor laa la wax ba ñu yóbbu leen jéem leen a testé xool ma moo wàcc ñoom ñëpp ñëpp laa la wax ba nu xoolee eh, waaye ndaw sàmb ñoom ñoo ñoo dañoo négatif laa la wax kenn amu ci coronavirus ay eh, waay ndaw sàmba loolu neex naa dégg de kon daal askanu sunu gaal nanu xam ni coronavirus bi daal ci étranger yi ko fi jot a indi dong dong rek képp kese la yam nag bu dee am na fi ndax kat boobaak nega ni laa la wax képp kuñ deeni da ngaa corona ngay nit ku ñuul buñ la xoolee duñ gis ci yow coronavirus baa ngi fa ba Italie waaye ca France nag moom dafa ëppy ba tey coronavirus ba jeexagu fa de dee déet waaye fii ci askanu sunu gaal laa la wax ba nu ne ñeent ba tey nee gun juróom laa la wax te wàññi nañ benn instant bi ñett la ñuy wax waaye moom Mamadou Diallo ba nu góowee wax wuti Sénégal moom yëkkati na ay kàddu sànni ko jël ko mu góo jëm ci wàllum njàng meeg njàngale Mamadou moom la mu wax mooy gisul benn yoon nii mille solution bi mooy ñu daal di tëj école yi laa la wax waaye nag li nga xam ne loolu lañu war a def mooy sensibiliser laa la wax waaw waaw conseiller mm-hmm. moom daal li nga xamante ni jàpp na ko mooy ñu daal di gën a jàngale la nga xamante ni les cours de la vie ay eh waay na samba cours de la vie moom li ci mel ni ay observation ak yu ni mel laa la ñu gën koo yokk gën koo dëggal gën koo fësal ca école ba ngir gone yi mën a seet eh waaye do samba man damay sangu laa la wax station boobu nañ koy indiwaat waaw waaw si lave les mains avec de l'eau et du savon nag boo waaw waaw waaw boobee tam war nañ koo indiwaat mani gën a ñaax gone yi ci li nga xamante ni moo jëm ci ak ket laa la wax mooy yoon ëpp law moom nag ma ngay fësal ak di xamle nii coronavirus bii laa la wax fi mu toll nii nag ci ñépp la concerné bàyyiwul kii bàyyi kee ndax kat adduna bi moo dëppewoo noonu laa la wax dañoo nekk ci li nga xam ne mooy village planétaire laa la wax lii am fii ci askanu Sénégal wala muy am fële ci Amérique laa la wax mooy am fii ci askanu sunu gaal lay am ca France yi tem mooy am fii li am fii mooy am France benn képp rek képp dongu la eh waaye ndaw sàmb waaw bu dee benn képp la laana lan moo tax ni ñi dugg ci meex mi naan dañuy tukki waaye yow lu sa yoon ma ngay commenté nan dem ay ca ñu de waaw bu dee leen képp lay tem sunu gone nekk foofee ca Chine laa la wax war na leen a a indi laa la wax jéem leen a xool mettre leen à la quarantaine bu nu dara nu ba leen ci askan bi waaye nag bu nu amee dara ñu faj ñu dem Guy Marius Sagna mi ak génnam laa la wax kaso bi nar naa jiw coow lu bare bare bare bare bare laa la wax ci biir gouvernement rang bi ndax kat am na ci ay mbuxum ak ay mbir yoo xamante ni gaa ñu ngi ko doon def ci biir laa la wax ku ci nekk ci ñoom bëgg ni moom moo génne Guy Marius Sagna ëpplew ci am ba des daal mooy maître Khoureychi Ba mi e waaye ndaw sàmb nga xam ni moom moo nekkoon avocat bu Guy Marius Sagna laa la wax wax na ay wax yu rëy laa la wax yu ngande yu ponkal laa la wax jëmale ko ci kan maître Amadou Sall mi ndax kat moom nee na day maître Sall mi e waaye ndaw sàmb ci FNR bi di front de résistance nationale ci la la mën a défendre Guy Marius Sagna ëpp law mi mbaa duñ ko de commerce ah. Sénégal maa ngay góode man bala maa wax lu ëpp ñu dem ba tey ba tey ubbil mbooli seen yéenekaay ña ngay ak di xam le mbir mi nga xamante ni moom moo jëmati ci mbirum jaay na ba bi moom jaay na ba bi na ci moom lu toll ci quinze millions de francs CFA laa la wax pour ko en charge eh waaye ndaw sàmba jaay na ba mii lam koy jiñ moo di ab ëmb ëpp la wu moom Mamadou Diop nag jàpp nañ ko niki nga xamante ni moom la ñu génn ay nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy enquêteurs yi les enquêteurs laa la wax de la division spécial de lutte contre la cybercriminalité ñoom nag ci ginnaaw bi laa la wax woo nañ geneen jigéen laa wax geneen xale bu jigéen li ko tey ci altine bi 9 mars laa la wax kan woo laa la wax mooy bu ndaw bu ndaw bu seen bëti gàlle ëpp la xale yi seen bëti gàlle yi ñoom nag lu nu nar waa man damaa xamul sax ñoom kañ leen fi màgg quoi ba tay sans limite xas jëm ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum Jeynaba eh waaye ndaw Samba nee na ma aw ma ci limite benn yoon ndax Jeynaba mii nga xamante ni moom jàppoon nañu ko laa la wax ak frère am bii di wéy turu Ali Ali fësal ak di xam le ni ñoom Dieynaba Balde laa la wax bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen biiri kër eh waaye ndaw sàmb te ñoom kat ma fàttali la ni ni ngi leen jàppee woon association de malfaiteurs laa la wax division des données personnelles jël ay mbirum jàmbur jël ay photos jàmbur laa la wax jël ay vidéo yi jàmbur daal di koy partagé ci internet bi waaw waaw danoo partagé woon vidéo boo xamante ni sa waay dara rek la traxlaayoo eh waay ndaw sambax sans limite ni ma accident bu métti bu doy waar accident bu met bu doy waar bi nga xamante ni am na foofee ca Njuuf laa la wax village bu nekk ci commune Njuuf ca Fatick ab bis laa la wax ab horaire de moo daa daanu laa la wax sept personnes laa la wax daa di cay faatu ca saase ëpplow oho inaari daax way nee rajo xoon am 48 blessé set yooyu yée yéen a kaay baa ngi xam le ni laa la am na ay góor ak ay jigéen ñeenti jigéen laak ñetti góor ca 48 blessé am na 17 yoo xamante ne ñu ngi ci état bu doy waar yéene moom oto boobee la tax mu daanu laa la wax punu ba toj bil ëpp law ña nga xamante ni nag ñoo ca nekk ay blessé yóbbu nañ leen foofee nga xamante ni moom mooy ci hôpital Ibrahima Niass bu Kaolack waaye tam ca yoonu Touba tul woowee accident bu méttee méttee méttee am na ca laa la wax ba am ñu ca jotam ñàkk seeni bakken sax kaddu yi nga xamante ni moom a yéem te ma day mooy kaddu yi nga xamante ni moom la rangu gère yëkkati laa la wax rangu eh ma ngay fësal ak di xam la naan man nag dama xaw a miin gàcce eh waaye ndaw sàmba moom daal gàcce du dara dara dara dara ci moom laa la wax ak li nga xamante ne askanu sunu gaal wax nañ ko ko lépp laa la wax Mame Matar Gueye bu Jamra lim ko wax lépp eh ndaw sàmba teewul benn yoon laa la wax muy fësal ak di xam la ni moom daal moom gàcce mooy borom jëlal xaw ma dina ko jëlam jédd waaye dëkk bi moom fi mu toll nii doy na waar ndax diggante Marème ak Assane ba faatu xew ci kaa bi nu mu demee laa la wax de A à Z li waajuru Marème yëkkati ak li waajuru asan yëkkati yépp dégg dégg nañ ko ah. lu ci am ba des daal boobu li diggante doy na waar lool lool lool lool lool waaye bakken dafa foor bakken moo foor laa la wax doy waar doy waar doy waar bakken kenn amul fayam waaye diggante jaay na ba Balde Diop Isaac moom lu ñu ciy wax jàpp nañ ñi bàyyi nañ ñi téye keneen convoqué eh waaye ndaw sàmba bu ndaw te moytu sunu gone yee ca wax duma tay di wax nañ leen jëli balaa coronavirus bi leen kor ah baax na sëgam yéen ku ngeen négatif ndax seen waajur yi seen xel mi dal sëy laatiir bu baaxee rek bësal clavier ñu dem ba subaak jàmm ci akin jëf